li si yéene kaay yi ku dee ci marché de yaa tàggee sa bopp ndax Hadjibou Soumaré de woolu neen ko ca kanam sûreté européen ci laaj bi mu laajoon président Macky Sall ndax fa nga yëkkati lu tolloo ko juróom-ñaari milliards jox ko kii di Marie Le Pen ci ngan gum fi ñëwoon Walf Fadjri quotidien du ñu xamal ne li de du guleet ñuy woolu première ministre ci kanamu yoon ndax kii di président Macky Sall de daloon na ko kii di Idrissa Seck de jot na koo dundoo ba ci Mamadou Dia ak kii di Hadjibou Soumaré critique yéene kaay ne bu deful ndànk dëgg de doy waar mën na ko cee fekk ci boobu la dossier moom moom Hadji bu Soumaré woolu nañ ko ca sûreté urbaine critique yéen kaay moo ñu ko xamal yéen kaay bi di libération ne mën nañu toll ci ñaari laaj yu ñu war a samp ci ndodd premier ministre ba woon ci kàddu ya mu yëkkati woon ci nganako Marie Le Pen yéen kaay di ñu xamal lu procureur bi sàkku ci sûreté urbaine jëm ci mbiru xaj bu Soumaré bopp si populi ne tontu yaa ngi bàbbeekoo de ci mouvement présidentiel bi dal ci kaw Hadji bu Soumaré daanaka songoon nañu ndax kii di Mamadou war a waxee ci dossier boobale Fatou Thiam ne moom de xàmmeetul kii di Hadjibou Soumaré Dakar Time naan Marie Le Pen ba bëgg a setal boppam ci nganam gu mi amaloon fii ci Ndakaaru tax na taskatu xibaar yi invité ko tey jii ginnaaw juróom ñeenti waxtu bu jotee foofe ca France Inter yéene kaay bi naan ci jamono ji sûreté urbaine wóolu na kii di Hadjibou Soumaré parce que na jàkkaarloo ak waa police yoor yoor yéene kaay ñëw di yoor yooree Ousmane Sonko muy clamé ci yoonu nguurug Sénégal naan moom de dañ ko buntu xatal ci réew mi yàggul dara ci yoonu Soumbédioune joge ci tribunal ci ma mom ak mambay Mbaye fofu lañu ko fekk dal di ko guufaane dal di ko cëxat cëxate dugal ko ci woto pa tak der doon lu ko métti mom mi di njiital passé fa taxna mu clamé ci yoonu nguur gu Sénégal le mandat taxaw duñu lañné ne lu tax ñu bari singali yoon ak xoti ormal yoon yene kay bi bëgg xamna na fan la mbir yi nekk yoon mo doxewul nu mu wara doxé wala nak Sénégal yi ñoo bëgg dëkk ak yoon l'évidence yene kay xëy duñu xamal tollu way réew mi ci ay jafe-jafe ci walu dundu gi ak xéraay bi nga xam ne président Macky Sall jëloon na ci ay dogal ngir ñu wàññi lépp luy dund ci biir marché bi am nañ ci ab seetlu na lool de dara amu ci nag loolu nag nekk lu métti président Macky Sall mu merci ba futtu te naan man de yaakaar gu tas laa ci àndatu lool nag tax na démb ci conseil des ministre mu taxaw kii de Amadou Ba premier ministre ngir mu gën a gaawal mbir mi gën a mbir yi ndax nag askan wi mën a gis seen bopp la soleil na président Macky Sall mu ngi sàkku ci nguur gi gën a baral liggéey bi ngir ñu mën a dekkal njëg gi ci marché ngir mën a yomb yombal askan wi dundu gi waaye itam moom président Macky Sall de ma ngay sakku ngir ñu paré lix électoral yi ci élection présidentielle 2024 yu ñuy Yenekai yéene kaay bi naan lu di wax na on l'a fait on l'a fait de démb jigéen ñi def neen ba mu baax mo xam ca sanciak ak lu mu mënta nek itam ña ngay saytu seen ak ak yelleef ndax nak boy war jigenu jambar deug ñewal fi ci Sénégal yene kay bi naan xana xolo jor fal saw mi njëkk nek procureur bu jigéen fi ci Sénégal liggéeyam ak kenn lam kàllaamee yéene kaay bi di ma xamal la groupe Safina FM ak Safina TV sargal nañu jigéen démb ci taxawaayu Adja Ñuma Ardo Ba waxtaanee nañu fa diine ak jamono ak taxawaayu jigéen ci réew mi njiit bu jiitee Safina di Adja Ñuma Ardo Ba mi ngi sàkku ngir ñu jox cër ak gëdd jigéen ñi ci Sénégal waa itam ma ngay rafetlu taxawaayu jigéen ñi ci Safina FM ak Safina TV Walfadjri quotidien xëy ci xëtam ma njëkk ne jigéenu Walfadjri de ña ngay naqarlu seen feetu bu ñu feet ci naaw Papa Ndiaye mu nekkoon foofa ak ñoom ñu jàppoon fan yu ñu wees waaye di ko ñaanal ak i sàkku ngir ñu teggi loxoom ci kawam loolee nag tax na ba seenu feet mënuñu amala benn xumbaaya ki mbex réew mi quotidien naan ma daanale ci jigéen ñi ma wax la lu doy la am ca diwaanu Sédhiou lu tollook téeméer ak fukk ak juróom ci ay ndongo ñoo dal di wan lor lu doy waar yéene kaay bi naan naqar ak tiis de moo dal ci kaw Sénégal ndax kii di maître Ousmane Seye moo ñàkk bakkanam tey jii ak lu mënta am daal na ñu yàlla defal jàmm